show. طهر اللهم روضه الشريف في البكرة والعشية لأزكى صلاة وأزكى سلام show. Goyle سبعين 生。 عطر اللهم روضه الشريف في البكرة والعشية لأزكى صلاة وأزكى سلام شاء Spoil 相。 عطر اللهم روضه الشريفة في البكرة والعشية لأزكى صلاة وأزكى سلام shine. sidna ali ñëw di ndaw lu yàlla muurul xelam te it ba ñu daan jaamu ji xërëm dañ ko daan fàtte ba ñu daan jaamu ji xërëm dañ ko daan fàtte te kenn xamul woon lu tax ñu di ko fa fàtte ba moo tax jéem bi mësu ko sujjootaleel kudul borom waaw ndax bu mag ngi daan sujjootale xërëm gi dañu koy fàtte moo tax boo nee Abu Bakr ni radiallahu taala anhu boo nee Umar ni radiallahu taala anhu boo nee Ousmane ni radiallahu taala anhu boo nee Ali ñu ni karamallahu wajha ba pax tax na ñii rekk fi ne ba tey jigéen du bëgg jubalal yàlla defal ne Xadija mag mu bëgg jubalal yàlla defal ne Abubakar ndaw lu bëgg jubalal yàlla defal ne Ali ibnu Abi Talib kilifa guy wut ku mu roy yonent ba ci kanam bu jeex waaw gi yàlla man boppam mooy dalal xelu ki gëm waaw ah? amul ku xamul ni yàlla mën na boppam amul te ki man boppam it ngir nangul yàlla ni yàlla mën na boppam kiy weddi ni yàlla mënul boppam dafa mënul ci boppam dara xamuloo ni aha ba looloo tax waaw maanaam man gi yàlla man boppam ba ki gëm xam ni yàlla mën na boppam loolu moo koy dimbale ba mu man boppam moo koy dimbale ba mu man boppam ndax ki man boppam li ko tax man boppam mooy xam gi mu xam ni yàlla mën na boppam waaye ki nangoogul ni yàlla mën na boppam dafa mënagul ci boppam dara waaw nanguwul lii tax mu man ci boppam dara bés bu ko nangoo dana man ci boppam dara te bu keroogee dana xam ni yàlla man na boppam moo tax yàlla man boppam moo tax ki ko nekkal kattanu yàlla lay gën a gëm ci kattanu nit lu tax wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribaatil xayl waxul ni na tolloo waxul ni na tolloo parce que mënul nekk ndax booba jamono ñi gëm yàlla ëpp ñu téeméer te ña koy xeex mat nañu junni kon nag bu yàlla ne def leen ni ñoom wut leen doole waxul doole yu tolloo doole yéene la wax waaw waaw doole yéene la wax la ca def yàlla koy mottali ah. Ah. ndax li rëy nit lu tuuti la kon nag su la jaralee di di puus canon yëng yëng yëng yëng yëng ba xar gaa ni toll rek waaw ba xar gaa ni toll wa qadafna fi qulubihim ar-ru'b waaw ah. boo nekkul ci njub wa qadafna fi qulubihim ar-ru'b boo nekkul ci njub da ngay tiit waaw boo nekkul ci njub da ngay gaaw tiit boo gaawee tiit gannaay dootu la doy loo amati ca lay dem borom kër gi amul lu dul benn noon bu jëndee fanweeri fetal baqaar gàcce àgg rek waaw ba moo tax wax na ko yonent bi nee na ko néew nga yar ñi nga àndal ñi la safaan bare nañu waaye ma taxaw ci diggante bi mhm. ni ko nag yii ci des amul solo da ngeen a yàkkamti te man yàkkamti wu ma ndax bés a nga ca bés je daara ya daañu tànt ca bayalu mbuur tudd la fa du deñ mukk waaw soo da ngeen ne sama yàkkam ci ma ndax li nar a ñëw yëpp ngi ci sama kanam waaw waaye seen néew gii tax ngeen di ma jëwe xol maa ngi leen di xamal ni bés nga ca bés yi ca bayalu mbuur ba ay daara daañu fa def tant di la fa dund te kenn du ko mën a tey aha ah. seetal ki ñu ki ñu ne kay góorgóorlu te du def dara waaw ah. maanaam waxin la waxin la ki ñu ni kay góorgóorlu te kii def moom mu ngi def li ci des bu ci sa yoon ne dañ la ni kay góor góorgóorlu rek góorgóorlu waaw waaye kii def bu ci sa yoon nekk wadkuru wadkuru id kuntum أعداء fa بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان mu jeex takk li ci des sa yoon bu mu ci nekk waaw ki sama mbokkum pinc ki sama mbokkum dayra ki sama mbokkum daara ku leen taxa a soppante yomb gi yomb soppante bu mu tax ngeen ki ko sabab ndax bu ko sababul ku ko sababul tàpp pasu ba yetu koo wuutu mm-hmm. Mm-hmm. moo tax di ko bàyyi xel baax na mm-hmm. ba moo tax ni ko xam-xam moom yépp am njëriñ bu ca ñàkk njëriñ rek nit a ko jàddal waaye ba ca ëpp njëriñ nag mooy bi yàlla jox yonent bi ndax nit ci nit ñi man cee xame ñooy kan ak seen boroom ay kan Mhm. ndax dinaa ko faral di wax dinaa di wax ni borom kër gannaaw wut dépense am tey borom kër borom kër gën wut dépense tey dara gënul di farata ci moom mu xamal doom yëmu jur ñooy kan boo ko deful fii fukki at réew mi dana takk du taxaw dana takk ndax di nga sa morom màggat te ki nga jur mu am kattan xamul mooy kan ba muy taal réew mi daf koy bett ndax ñeneen na ko koy defloo waaw amul werante amul werante dinaa ko faral di wax te xale yi ñoo gën a yeewu ndax seen jamono ci la yeewu ti ubbi ba tax na dimbale leen ci la gën nekke farata boo fexewul ba ñu sopp la boo fexewul ba ñu miin la du ñu la sopp boo fexewul ba ñu sopp la loo leen wax bu ñu génnee wetti ko dara ci mën waaw bu ñu la sopp bu ñu la sopp loo leen wax moo xam sëriñ nga dangay xëy sol sa laax sol sa bolok lëkkaayoo sa sër ndax bër di dafay soog a noppi nga woo leen yéen ñii yéen ñii yéen a dëgër bopp yéen ñii nangam nangam yéen ñii mun de xam woon wax a wax baa gën ñu ni eh waaye yow paa bi ak laafaam bu bon bi lee <laughs> amul leneen amul leneen amul leneen wala doon nga xam ni doo sëriñ ci cadre yi nga bokk waaye fexe nga ba soppuñu la ndax miinuñu la ndax yow boole woo leen ci sa jot bésu dimanche nga am nga sol sa pyjama teg ci sa robe de chambre et toog ak ñoom ndax cadre nga commencé eh, attention ah man am na yoo xam ne ah sama kër discipline ah commencé waxox ba àgg ñu génn ni paa bi moo bëri tiital <laughs> mu jeex tax <laughs> <laughs> fexe ba ñu miin la ñu la sopp bu ñu la soppee la wax ak ñoom dañu ko set waaw te dinañu dem ba ci seen âge nga xeeb leen fekk xam nañu ni yow waaw lu am solo la am am solo la moo tax mag ñi principe yi ñu gën a gëm am na ci bu am solo al aarif al aarif man arafa بزمانه مقبلا على شأنه bare na lu ko Cheikh Hadj Malick bind waaw lu mët a dégg la xam sa jamono farata la waaw mag bu xamee jamonoom te rax ca ful la ba ca war mat na bàyyi mat na maître te it alhaariku man arafa bi zamani muqbilan ala shani lu mat a bàyyi xel te it daan na wax ni darul mafsada darul mafsada awla min jalbil maslaha ni ko mag ñi daan waxe darul mafsada awla min jalbil maslaha mais gannaaw ga nag ñu seetaat ko ñu seetaat ko fekk benn la aha fekk benn la darul mafsada awla mi min jalbil maslaha waaw ñu seetaat ko gis ni benn la bu ci dikk te morom ma ñëwul adduna tukki ñu ne kon nag darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha ok wallahi kër ñaara fay taxaw suba li ragal ak neex suba su ne ñu nuyoo si ci kër li nga ragal ak li neex bu jëkk nag mag ñi ni bala ngaa song li neex dàqal li nga ragal ñu ni waaw booy dàqal li nga ragal ba bi nga dellu li neex fekkuloo ko fa foo jëm foofu la xikma bi nekk waaw li nga ragal dëdu dëdu tee nga xëcc li neex borom kër piir loolu lay def yombul na waaw baqaar bu dàqee li mu ragal bu dellu see du fa fekk li baax waaye xam tënku xam tënku xam tënku mooy tax boo dóoree paaka ba rek mu teqali ko waaw bu ca borom kër àggul bu ba rek sawi tëtëri lu muy indi xamuloon waaye gaynde gi tayal moom du jóg fa mu ne mukk xaj koy man fuuf ndax gaynde bu jógatul fa mu ne rek adduna tukki wata mhm. dinaa di wax ni di góor gi daan wax ni till ga rey na gaynde ga ne gàcce la de waaye ñu bari dégguñu ko mhm. ñu bari dégguñu ko ndax dañu ko yenn ci nooneel te fekk na moom ci responsabilité la ko yenn mhm. ci responsabilité ki sàkkit kër gi war bu rombee yootekat bi rek mu fa kër gi war bu rombee yootekat bi bu mu fa taxaw mukk bu fa taxawee toog bu toogee yoote bu yootee jant so ci kawam kii amu responsabilité te moom am na responsabilité moom la ñuy kon til la rey na gaynde waaw ah, tolloowul ak yeewu yen ku tolloowul ak yeewu yen bu ko may sa bëccëg waaw ku tolloowul ak yeewu yen bu ko ma sa bëccëg waaw ku tolloowul ak yeewu yen bu ko may sa bëccëg <coughs> wallahi wallahi ci niveau